waaw kon gars yi génn leen ko wax ci groupe bi waaye génn leen di nelaw bu heure bi dañuy génn toog koo waxante am te génn leen génn leen wax ci groupe bi sam waaye yow sa waay yàqal nga ma waay waaye yow gis koy whatsapp ngay taxaw fii nakaan na ngeen def ah eh, alors waaye ma ne waaw mais man la gars yi génn leen si groupe bi ngeen di génn tamit di jokkalante di wax. waaw bu baax yooyu. defal léegi maa xet li laay war a sori. góor gi merde. man laa yow yaa may yàqal xaw ma ko. yow jëm mu toll ni man weer ngoon nga am a merde. yow yow mi toog ak man nag di wax ak man nag xam nga ki ma doon yaa ma mag yow. yow doo kenn waaye nag damaa jóge nii rek dajeeg ndaw see doon ko laaj kër Baye Kanda nee na nag daan doon na la gis côté yooyu nga fay génn moo tax maam sañ-sañ ñëw di la laaj. pour jeexal wax ci xaw ma ko mais gars yi génn leen nag génn leen wax ci mbir mi génn leen. waaye xam naa whatsapp ak facebook yàq nañ ko. waaw ma ne génn leen waay génn leen génn leen nag wax groupe beeg whatsapp bi. góor gi demal sa yoon. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. waaye yow toroxal mag moom bu soobee yàlla doo ci jëlee ndax. mais yow mag la yow. lii <laughs> kenn du ko gis. dajeeg doomeeraam di ko laaj kenn xamul lu muy niroo ah ba bu ne Dakar yi ni ñu yàqoo jaaxal na. waaye ah? naa la. waaw papa xam a la xam yooyu. yaa ci kanam baa sonnoo ci di man maay jaar. <laughs> man de waaru naa xamul wala njëkk a laaj. maa bàyyi nga ma ko ak mënoon a mbokk foofu. et loolu moom temps yu xale la Pape ba nga yàgg ci biir. ma sonn ci yoon bi waaw xaw naa sonn tuuti. yaay waaw yaay génnal nga am nañ gan. gan ngeen ay man sama caabi nii. waaw waa Ndiaye. kii la awa buuru kër. la gis. amoo benn coppeeku nag. yow daal da ngay gën di nekk gone rek. maa ngi rek gis nga de gis nga de. tey sama waa ji rek. nu may def. waaye nañ ci jàmm. ñu ngi ci jàmm ni jaay. naka koor gi maa méttiwul. billaay jóge ci koor gi di góorgóorlu rek. koor gi koor méttiwul. waaw waaw yàlla ñu ko jox wallaay. ñu koy jël rek armandi sees bi. armandi sees bi yow. dëgg la kay leneen dafa coono ex ex ñoo ngi nii rek ni jaay. alhamdulilah ñoo ngi nii rek. gaay. sonn nga de maa ngi ci tàng la waaw waaw xaw naa sonn rek. gaay maa ngi ci tàng la trop tàng la lool. bisimilah bisimilah. waaw naka dëkk ba. waaw waaw dëkk baa nga fa. yëpp la waaw xoolal waaye ñu ngi sant bu baax. alhamdulilah mën na ko woor ge. mbaa woor ge. woor naa ah, kay. baax iya, na. liggéey ah. moo ne day woor sa jàpp bi day woor. ah kon alhamdulilah. Iya, waa ya, ya, ya, ah. moom de day dox rek. kuma. yow ndekete yaa ngi ràcc fii. yow maa ngi dajeeg yow ci mbedd di ma laaj. ma ne la xaw ma ndekete yaa ngi sama famille ràcc fii. xaw ma ki ngay laaj. Eh, ci mbedd am ku muy wër ma xaw ma ko. sama groupe whatsapp. réew mi mu ñëw laaj ma mën ay góor gi xaw ma ki ngay wax. mu ñëw ràcc fii. coono bu ma xam tey moom mi mi. kii sa rakku papa la kii sa rakki baay la sama rakki baay ba meen na ah! kon kii du bay pees bay pes. ma toj sunu bon kat waay yow it lan la li bay pees ah sa ah. rakki baay du bay pees ah bay pes. tu boobu jekkul de bu ma ko wooweeti de man sa baay laa lii lan nga man ci dara man daal dañu nag man boobu maa ngi fekk si ma nekk si réseaux sociaux yi di collecté yow bokkal si groupe bi groupe bu ñëw defal réew mi ci la bok nañ ci bok de wa yow bay pees yow alors wa yow ba bari ay man ana njabot gi ki lu ko dal dina dinaa tik mom moom ndax nga man ci dara wa dama ne ana njabot gi kon dal yeen wa première dame première dame awa première dame première dame ñëw ñëwal gan ñëw na ñëwal ndax mu am jàmm gan ñëw na ñëwal gisee yaay premier dame ñëwal ndax mu am jàmm yaay man man ko yaay man xawma lan la waaye paa bi seen famille bari nañu masha allah salaamaaleykum ay gone gi kii nu yonte rek kii ñëwal nii sa goro la de sama goro sa goro la ñëwal dafa ñëwal seet suñu rek ñëwal nii gis yaay famille day mat yem kii ak sama ñaari doom kese mooy famille yow man nga may wokkee weeru koor kenn du ci wokk dangay ngay wari de lu leer laa la ma ne yaay famille day tóot famille day yem waaye sama famille pap raison yi si Sénégal yëpp fu ne am na fa rakk mbaa pap mbaa nijaay mbaa tonto loolu mooy famille ah dafa bari il faut ñuy wàññeeku. bu ñu fekkoon ne sax ñaar ñu dee sax moo gën. ay aman ndaw ah, man ah, ah, na kii yéen fi ñaar ñëw. ah dafa bari de yéen yéen yéen leen ci jàmm de. ay di jaay ñu dem dëkk li ngeen di dund. nii koy xale. jikkoy xale. Ah? nee naa ko ponkal mu ni leen nga toll ni bàyyam nga naan réew doo nga nee naa ko mënoon ngaa doon bi man ma doon mag ji. nii daal la mel façon lu ne def nañ mais mënu fexe ba changé. nijaay te li ma gën a métti ci gone gi kii rek lu awa Cheikh def ma nëpp. Mhm. papam it lu mu def ma mëpp. may defar rek. Mhm. li ma ci xale bi bii rek. mooy bàyyiwul tux nag waxi noppi. waaye man de. waa léegi yéen da ngeen koo seetaan nii rek jéemu leen cee def benn pexe. waaw Ndiaye fu du ngeen dem seeti maam yi walla dara. xanaa loolu papa waaye man ne duma ma ne dafa bon. Ah! parce que dëgg yàlla. Hmm? bi mu nekkee senegal gii. Hmm. woon nii wallaay waxal sa mais depuis mu jóge fii dem bitim réew ba tey. bi mu hmm. ñibbisee daal melokaanam bii. la fi ëndaal. Ah, loolu moom jàpp wax gis nga bitim réew nit defaroon na fa waaye nit yàqoon na fa. te muy dëgg de waaw. kay moo gën solution bi mooy nañ leen jóg man moom bu soobee yàlla ñëw naa. Mhm. te tabaski laa ñibbi bu neexee yàlla lépp lu ma ci mën danaa ko ci def. ah ndax suñu njaboot la nag duñ ko seetaan. mu mel nii buñ ko xasee ñun lañu xas yéen lañu xas. bu dëgg kon kay bu baaxee ñun la baaxal bu bonee yëpp kon kay na baax kay bu baax moom a gënal baax